Gustave Gustave Mendes euh, man euh, tournoi bi ça fait quinze ans depuis ba léegi maa ngi koy organiser boo gisee pour am xale yi am occupation moo tax ma koy organiser nii ndax ça fait depuis quinze ans ba léegi dama gis parfois damay gis xale yi yenn saa yi dañuy déplacer ñëw ba fële di seetaan nawetaan te xale yi war nañu am seen nawetaan ñoom itam objectif boobu loolu moo tax ma woo ma dajale quartier yu bëre Ngent Petit Thialy Grand Thialy taaxi ko kër maam El Hadj ñoom ñëpp fu nekk la xale yu jógee waa na Fall ñëw ma leen organiser tournoi bi loolu moo tax ma leen ko defal au moins pour ñu mën a am occupation moo tax depuis boobu ba léegi maa ngi organiser tournoi dajale booy. moyens yi mu koy organiser mooy yenn saa yi damay am sama benn copain boo xamante ne ma ñëw expliquer ko ma ne ko man de kat booy dama leen di organiser tournoi boo gisee ñu bëgg ko ay jeu de maillot yi leen di jox moo tax te jeu maa ngi leen commencé jox depuis 2008. 2000 euh, laa commencé ba 2007 dama leen doon jox ay meew nii jël sama coupe jox leen ñoom ñu dem bu ñëwee dañuy delloo coupe bi mais depuis 2008 Aboubacry Sarr moo fi ñëw ñëw fekk ma comme nii mu ñëw mu ñëw jëndal ma ay jeu de maillot jox ma ay ballon jox ma mille francs ak yëpp ma ñëw tegal ko xale yi loolu boobu ba léegi nag xale yi ba ñu gisee affaire boobu affaire bi gën a euh, yokk ampleur bi gën a yokk fu nekk la jóge fu nekk ñu gën a bëre léegi nag. parfois itam ñeen ñi dañuy ñëw comme boobu ba léegi Aboubacar Sarr bu may kiiwee ba léegi benn yoon boobu depuis 2008 après 2009 man maa ñëw di xool samay copains yi def ay soutien ak booy seen toute participation ma boole ko di leen jël boo dee xool financement presque boo dee xool boo dajale presque ay deux francs la ndax ay jeu de maillot jeu de maillot bu ci nekk yaa ngi koy amee quarante mille wala quarante cinq mille nga war ci am quatre jeux de maillot coupe nga war ko am ah ak animation bi yooyu yëpp. ma koy defal vraiment may may lancé appel ñëpp vraiment buñ ci mën a jàpp dina baax trop maire yi fu mu nekk comme zone bi keroog laa ñëw ma wa waaw zone ma ñëw ba dernier moment la ñu ñëw ki ma war a booleeg moom mu ne ah affaire bi de gars yi vraiment temps yi dañoo saturé moom noonu laa mujjee bàyyi affaire bi mais nag am na ñoo xam ne ba léegi fu mu ne actuellement ñu ngi ma dig nañ ma ay affaire yoo xamante ñoom laa war a jox xale yi ñooñu ba léegi boo dee xool ñëw ñu ay soutien laa leen jox ñu jox ma ay 5000 francs mooy ñi nga xam ne ay joueurs yi fi bokkoon en 2000 am na ay joueurs yi fi bokkoon comme boo dee xool euh, am na koo xamante moom laa namewoon meilleur meilleur gardien 2003 euh, euh, daaw moom moo nekk meilleur gardien zone de muy Baye Baye Modou Gueye bi nekk góolu kër gi boo dee xool sama tournoi bi ne jaaroon na ci en 2003 en 2003 moom moo nekkoon meilleur gardien fii. ñëw ñëpp fi lañ jaar fu am na ñoo xam ne dañuy ñëw di nemee ko même booy ñi nga àndal ne am na ñoo xam ne jaar tournoi bi man loolu rek laa am fu mu nekk maa ngi lancé appel ñëpp vraiment buñ ci mën a jàpp ëllëg waaw benn boo dee boo dee xale yi xale yi bu ma gis ma leen jàppale ni ndax ñii ñooy alalu ëllëg sunu sport fii loolu moo tax ma leen jàppale lii te itam boo dee xool terrain bi fu mu nekk dama am problème mu terrain boo dee xool euh, booy booy damay bëgg yenn saa ñu ñu football ba yenn âge mais mënuñu ko ndax awma terrain boo dee xool terrain yëpp dañ ko occupé équipe nawetaan ñoo ko kii fii laay footballee léegi foofu laay terminé waaw mais mooy mooy école Serigne Issa Deme mais ay ACAPES yooyu ASC dañ ci nekk yenn terrain yëpp ASC dañ nekk awma benn terrain boo xam budul fii loolu itam bëggoon naa gars jàppale ma ci. waaw ak vraiment wax leen ne man xale yi jeu de maillot yi ñuy kii ak coupe yi lii xale yi lii ñu am nawetaan ñi mag yi di am man sama objectif mooy lépp lu ñu am ci mag yi bëgg naa xale yi ñoo koy am loolu moo tax ma leen defal jeu de maillot di leen defal lépp même bi passé ay médailles yëpp defal naa lañ ko vraiment loolu moo tax nag may lancer appel gars yi ñu jàpp gën cee jàpp. looy jàngee. kañ nga ñëw ci tournage kañ nga commencé fekk daal noo noo gisee tournoi bi. Mm-hmm. ak kilifa yi ci dëkk bi. ñan. ay taal si naaw yëpp maa leen wax ñu jàpp ko ndax ñun ay terrain lañ bëgg amul lu dul tournoi bi moom lañ bëgg moom lañ maa leen wax si ñu mënee jàpp ñu jàpp thank you